بالآي والآي والهدى ما وراء الجتاي محط من الوحي والرسول سيدنا سيدنا محمد لخرج فكيف يطيب الامر عند تاونا سين مولود téere bii la taalif ni yàlla su ma demul Makka ren kon li des sama dund jaratu ko fa dunyaakum hakum idaa xanil xadaa عن الثور من دار الحبيب قليل وحاد استفان قبل نشأة آدم ومن له على قليل أنا يظهر من أمن كبر كيرنت نرم صنع المصطفى بعد ما أتى من تقناك تقوقا ثناء من الهادي عليه جميل فما زال منقولا من اصلاب الطول الى الطيبه من يوم الاصول راتبتنا زهرا من حين حبيبي عجائب تبكي غير يسيل حمود النار كروه بغيرته تدلى نجوم في جوهه تميل أدال بدعاء القصور لخيسر بمجده واعتف بشرى للولاد تطول دقل نغلايا على الأكرم يتيماتكم يتيماتكم يتيمات رسول في حضره ياتي أمين الذي لولاه ما بردت بدونك مو شمس ولا قمر غبراه غبراه فدنياكم وهاكم إذا خن الخدا نينا يينا ني في توغ دي بك ادنا واي من ماغي بك جوكو سما سوبي ادنا ngok jëlli fekki mom raw di yonanti bi ani dawri min dali habibi khalil وهذا اصطفاء الخبل ليست آدم ومن له أغلاك الآن يطير يلا فدم ويسرين بابكر مام دي بقصب تسب لقيل نمامم نينكو كان مو يسب من ممد كل أولياء رحماني شيخ تجان مو بمامم زكاون وفاول بل سقاء أناته وغيم وصبر إنه متوادع وعفو وإيثار Hallelujah.

bi jamiir suñu mi ñu ngi yëkkati suñu kaddu di sant borom bi subhaanahu wa taala di julli yant bi sallallahu alayhi wa sallam lii yépp nag ñu yëngatu ki nga xamante ne moom lañ ko war a sante yàlla la yàlla moomu subhaanahu wa taala moo ñu bind def ñu ay jullit ndaxte bu ñu demee ca sotu age mu nga naan huwa tabaakum wa ma jaala aleykum fi diini min xaraaj milaata abikum ibrahima man maa leen tànn yàlla ñu tànn de yàlla bu ko neexoon temps bi ñu nga nekk ca bistro ya te kenn du ci man dara kon nag benn mérite nekku fi moom la neex mu binde nii te nii ma bindee nee nii ma bindee suba kenn du ma laaj yow yàlla lu tax nga def lii man la neex suma sañ-sañ la kon nag buur booba nag bu ñu yee ba fii dañu war a góorlu li nga xamante ne nekk na ci dañu koy sant cantu gu amul àpp di julli tamit ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne lu mu bind yonent bi la gën lu mu bind yonent bi la gën ndaxte nag li nga xam ne Sénégal daf ko am ay nit yu baax jaar fi yee ñu nag ci diine ñu war góor góorlu ba ñoom fa ñu tegoon seen tànk ñu góorgóorlu ba teg fa suñu tànk ndax bu subaa daje ba mën a neex waaye nag bu nga nekk ci àddina nekk ci lu ñu neex du noonu de ajjana bako yalla bindé xol ko ne ko waaw léegi nag lan nga wax ak rafetaayam ajjana dafa sabal kon nañu wara a ci li nga xamné ne moom moo di bi imam euh monsieur le conférencier bu ma ne sax monsieur le conférencier damay universaliser rek nde ñepp xam nañ la ci télé bi ñepp gis nañu tamit également sa dëggu ñu ngi lay ñaanal yal na la yàlla jàppale ñëpp ñi nga xamné ñi nga tukam yow yal na leen yàlla jàppale suñu islam bii mag yi dem nañu waaye yéen yéen a fi nekk suñu yaakaar yëpp tamit également yéen la li nga xam ne moom ngeen di yëkkati comme kàddu na nekk loo xam ne bis bu jot rek en avant en avant en avant fi ba euh, àjjana firdaws yàlla mën na ko te yàlla nañu ko yàlla defal ñu leen gërëm nag di leen sant. ci koor gi di leen ci naafili yi ak waxtaan yi ñoom weer wi am na li sëriñ Cheikh naan coono bu delloo ci yàlla tuddul coono xéewal la génne yàlla nag fitna la man yàlla ñu yàlla taas ci seen xéewal gi li ngeen mën yéen rekk la ko yàlla jagale dangay wax ne ñaar bu jàkk xatee bu wéetee boo ñëwee seen leen dugal ak kiy jiite pexe amul tax ñoom rek la yàlla am ci kaw suuf ñett ñoo ko représenté ci biir jaami muy imaam di yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim yàlla ki ko jiiteel li mu fi am kooka la fa am waaye ña topp ca kaw kamu amit buy jox ñooña kamu fa am la koy jox mu jox leen ko ñamu fa amit lu ñu soxla ci yàlla jaar ci imaam mu yegg ci sunu borom yàlla du wor ndax wa ma rabbuka bi zallaamin lil abid ci Cheikh Al Hadj nee na jaamu yàlla maanaam def li yàlla bëgg man naa yóbbu ki koy def aljanna waaye jaamu yàlla nag mënta tax nga jege yàlla déedéet jaamu yàlla mën naa yóbbu jaamu yàlla aljana waaye jaamu yàlla manta tax jaamu yàlla jege yàlla waxin la nag ndax li la yóbbu aljana sori la yàlla jar na xalaat su gàmmu Tiwaawoon jotee walla màggalu Tuubaa man nga am paas dugg ci oto mu yóbbu la Touba kon paas bi ngay méngale ak jaamu yàlla gi oto bi yóbbu la Touba wàcc nga taxul nga jege sëñ Muntaxa loo rek la kon jaamu yàlla mën naa yóbbu jaamu yàlla bi aljana mais mënul tax mu jege yàlla lay tax nga jege yàlla Maodo ne wasala man qad wasala bil xurmati ku yaruwul doo yegg ci yàlla du ngeen toog Maodo ne joxe ci rekk mooy tax a jege yàlla Cheikhil Xadim dafa waxoon ni wa min dalaa'il aaxiri zamaan taqdiimul jaahil wa taaxirul aalim Sëñ Tuubaa na bu àdduna di bëgg a jeex ci ñaar lañ koy xami ñi ne ko ban ak ban mu ne mbooloo muu séen ñu tuddee ko mbooloo lislaam ka ko jiite boo ko laajee masala du la tontu ci lañu ñu ñi jiite daayira ñi ci ëpp ñëpp feruñu iji dara xamuñu ko te ñoom la ñuy déglu ustaas bi kenn faalewu ko buñ demee ba waxtu wi jeex dañ naan ñu jox ussaas ñiy tàggoo ñii di jóg di dem muy arabal duma arabal duma indol bala ngaa jóg ma jóg te kenn du bàyyi ki xam di déglu ko xamul jataay bi yàlla def ni ku fi dugg am loo soxla xam demal ca ka xam nga laaj ko fasalu ahla dikr in kuntum la taalamun mbooloo moo xam ne yàlla def ni ki jiite na leeral ku xamul na ko laaj ki jiite xamul adduna bu tukki la moo tax orma dafa am solo góor gi Abdul Hamid Kan ca kaw la mooy maamu ñoom Serigne Cheikh foofu mooy néeg yaay ñoom Serigne Cheikh maam Abdou Hamid su masaa ñëw tiwaawoon seen Cheikh Alhaaj Malik wala dëkk bu Malik ne su góor gi ñëwee ba ci gaar bi summi na dàllam def ci mbuus du sol dàll tuwaawoon suy jógee Kaolack waaj na njàppam ak yépp nee na tuwaawoon du fi dugg woon ndax Malick du fa ñendu du fa dugg woon ak du fa sol dàll ndax Cheikh Al Hadji du Hadji Malick li ci Malick la soo duggee ci hôpital bi ñépp sol blouse waaye ku ne sa blouse ak la muy liggéey gardien bi am na boo ñëwee ne ko pikiir ma xam ne du waaja ku ni ak lay cëram ma Abdou Hamid gis nga Cheikh Omar day ñëw ci tànt

Cheikh Tidiane mi soo ko joxoon tey bu yuuxoo nga ne déedéet ti làmmeñ làmmeñ la waaye balaa soof moom it mu ne day conférence day reeloo nit ñi rek waaye cheikh yi nag doy na dinaa ciy xuloog suñu waykati kër yi bu ñu demee ci daje way ba pare bëgg di wax ma ne leen déet yem leen ci seen wàll di bàyyi oustaz bi wàllam way nga moom way nga pare ji yaatu kulle di xaqin xaqa su ngeen dajee tey Muhammad tey wax ku ne la mu moom jox leen ko moo tax mag ñi liñ ñu rawee du téere yi yar bi la liñ ñu yare rawee du téere yi tarbiya bi la ñun jàng nañu mais amuñu tarbiya jàng nañu mais amuñu yar moo tax ci xam-xam bi dañ ciy woyaan mais duñ ci woyal duñ ci wayal soo mukk mu ñu njar ñépp naan ci wayaan rek moo tax su koor gi ñëwee nga tiit bég suy bëgg a jeex nga tiit am nañu bëggul mu jeex ndax sàmbay mbayaanu kii parce que ci la ñuy te du du àdduna xam-xam bi teral xaadimu rasul ba ay million gëm ko teral cheikh alhaaji malik ba ay million gëm ko seyduna muhammad li ci moom yépp ngi ci moom waaye bi mu demee bëgg a bokk ci gaa yi yàlla def ko ne noonoo sama rangi xam-xam iqara bismi rabbi sëriñ bu jàngul du sëriñ gis naa ci réseaux sociaux yi ñu yónni ma ko benn waaye bii kaas naan wëy ñun ñun doomu sëriñ si ñun sëriñ si man tontu ko ni ko yow sa baay jàngul ah, yow jàngoo doo noppi mu ne ma yow la kan ma ne ko Iran ma ne ko xam naa sa papa sama wóllëre la mais ferul it maa ko jàngal lax dër yi yow jàngoo ci daara ji leen doon nga daw yow luy sa yoon ci sëriñ mu ne yow sa baay jàngul jàngalewul yow jàngoo jàngalewoo bokkoo ci rangi Cheikh Al Hadj Malick bi ñu laaj yenent bi lu tax mu war a jàng yàlla def ko ne eh antal xaatimun nuzumi ku bëgg bokk ci yenent yi da xam lanu xamoon ku bokk bëgg bokk ci woykat yi dangay jàng woy ti neex làmmiñ waaye yombul nag moo tax boo jàngee mu ngi mel ni ki jàng oto ci biir hôpital bi rek di raxas di tourner oto ka dem garage di fanaan ci àll bi di defari pneu di jënd essence bu dajee ki jàngee ci hôpital bi oto duñ yem mukk këlay ëpp barke moo ko yëpp barke moo tax loo sonnul doo ko jëriñu moo tax Cheikh El Hadj Malick jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla bi aljana waaye mënu ko jegeel yàlla li mun a tax nga jege yàlla mooy joxe cër le yenent bi nee na man lam yarham sagiirana wa yaaraf xaqa kabirana fa laysa minna mu Moustapha nee na ku amul yërmande ci doom sa doom muy xale dem yóbbu ko mu jàng nga yar ko ba boo dee ci man ku mu jàng nga yar ko ba boo ko fi du tumuranke bokkoo ci man mu ne ku dul jox mag cër ndax ñàkk yar yeneen tumi ne na bokkoo ci man man lam yarham saxiirana wa yaaraf xaqa kabirana fa laysa minna yërëm xale mooy jàngal ko yar ko kuy am xam-xam yaru doo tumuranke sa doom boo ko bëggee danga koy jàngal yar ko Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz lii may bëgg a wax déggewu ko ci kenn di ci gémmiñam mu ne Serigne Hadi Touré suñ daan dem dafa ma naan jëlal der bi ak mbuus mi ak satala bi ca àll bi mooy ni nee suñ demee ba midi sëriñ àddina ana Abdoulaye Sis nee na ma ne ko maa ngi mu génne mbuus mi tibb pepp pepp waxuma la ay sànqal de pepp mi nee na ab dank sotti sama tenk ne ma yéyal nee na ma di ko yi ndànk di wan ba mu jeex mu jël kubiiru satala bi sotti ko ba mu fees ne ma naanal ma naan mu ne ma sa añangoo doomu alaaji Malick la Haadi Touré def noonu mais di koy defer tey alaaji yëpp du ko ko gën réew mii mu ne kan moo ko ci ëpp cër oyof na rafet na xol mën naa boot bëgg na jàmm mën naa fay mën naa ñaw lu xottee ko mu ñaw lu tàkk mu fay am ku yàlla bind ngay jullit baa doo jullit te di sopp walla jàpp bu Haadi Touré jiituwuloon ci moom loolu du am tarbiya du caaxaan ma déggaat ci zaawiya bi maa ngi toog mu ni dafa am bés Cheikh Alhaaj Malick am gan xam nga mag ñi dañuy bëgg rek boo seen doomu sëriñ di bokk ñoom nee na gan ñi ne ma kaay ñu lekk nee ma dem sukk fi ma sukk rek ma dégg Amadou Lo naan ana Abdoul Aziz ñu ne ko mu ngi ci gan ñi nee na mu tugg ci biir fekk ma tibb ba pare mu yëlëb sama loxo faxas tibb bi ne ma acc ca xale ya kër alaaji Malick lekk ko alaaji Malick doomu alaaji Malick taalibe Maodo tere ko ko àndu démb ak tey du benn maam Cheikh Ibrahima Niass nee na taalibeeg sëriñ am na waaye buur ak dagit am na nee na am na sëriñ soo xam ne buur lanu am na taalibe yoo xam ne ay dag lanu lekk gu neex lal bu nooy seetaan ay film sëriñ boo xam ne duñ ne la day jàng alxuraan xaar ko tuuti daa yor kurusam xaar ko tuuti day naafile xaar ko tuuti dégg naa benn yambar mu naan naafile yi ñuy wax yonent bi baw ko fi yonent bi dafee mën a bàyyi lépp xanaa du nit lépp Moustapha da ko fee mën a bàyyi mi rukkoo سبحان ربي الأعلى ربي العظيم وبحمدي فوق القرآن بند فلك بند إمام سجود سبحان ربي الأعلى فنكو بند من يقول تي القرآن تي ينين تبي كفين دين يأبليكي بو بي ينين تبي دمي دفني على علماء ورثة الأنبياء كو أوتو دوا يمفامو يمون دنگا يوكو déggunu dara xamunu dara te gis nga bu sa xol bonee doo gàtt sa bu sa xol bonee sa xel day tëju xol bu bon ak dorog ñoo yem al ulama u warasatul yow sa papa dee bala kër gi di néegi ñax nga xaddi ñax mi tabax ko loolu aay na ku def lii ñu ni moo fi wuutu baayam te yenent bi ne borom xam-xam yi mu fi wut mu def lu yàlla waxul te yàlla ànd ci sahaaba yi def lu mu waxul te yenent bi ànd ci borom xam-xam yi sañ na noo def lu mu waxul te mu rafet mu ànd ci parce que moo wax ci gémmiñam ne borom xam-xam yi ñoo ko uutu ku uutu na war a rafetal ku uutu yokk ku yuutu yaatal mës ngaa gis xoola raabiyatal adawiya yenent bi dafay bàyyi mille rakka daaw ko julli chaque jour mil rakka chaque jour tiy jigéen masula dokkoor ba mu ba ni mu xëy faatu bis bu jot day woor te yenent bi daawul def loolu kërug mbaax loo fa indi ci mbaax kër ga xet mille rakkaa daan julli par jour ki wax loolu na wax ci lii ba xam ndax yeneentu bee ko fi bàyyi yenent bi gis nga boroom kër Serigne Cheikh nee na boroom kër bu ku ne bayee dara ñii bay ñebbe ñii bay gerte ñii bay dugub ñiy bay pataas ñii bay ñambi nee na day dimbale borom kër day tax du jëggaani dara yenent bi nu mu yaatoo gënal ko moo tax xorma baax na nee na muy yëlëb loxo maam Abdoul Aziz ni ko acci ca xale ya maam Abdou jóg dem maa toog ci zaaw xam nga ma Abdou moo ñu óotal ku ñu jàngal saani doomu sëriñ su bari jànguñu lawal bay jàng saani ñun dañu jàng lawal mu jeex amuñu ku koy jàngale tuwaawam maam alaa jab dem ba Linguère mu jëli fa góor gi yuusufa ngëneel ngëneel la sant moo ñu jàngal saani ñun ca zaawiya ba la ko indi ci jàkk jigéen ñi buñ jullit sibaar ñun ñëpp daje fa su dul maam Abdou ñun du ñu jàng sànni Cheikh El Hadj Abdou si mbaax da ko jaral lu ne maam Abdou nee bi ma defee noonu nee na ñu boole ko Cheikh El Hadj ñun suñu kër a gën a naqari ci kër yi dafa bari ay moor yombale kër bu bëri ñu bëggul yomb jàmm du fa am day bëri fenk parce que ci fen lañ bëgg di dund koo toog ci saalam tagg ko Seydina Omar dafa toog ci benn daje benn waay ñëw naan ratatatatat di bokk ak diw ratatatatat Omar déglu ko ba mu yeggal mu ne ko yow mokkal nga alxuraan loo ci mokkal mu ne ko dara mu ne ko ni nga famille bii ràbb nga ko waxtu soo ko defee ci alxuraan mu mokk te lii gën a jafe alxuraan bu ma la gisatee te tariwoo ko ma duma la waaja dem ci abu hurayrata waaye avant déwén nee alxuraan comme ndox mu ñëw ci omar tari ko omar ni ko waaw kay boole kook lee nag xamoo ni géwél bu jàng kéemaan la géwél bu jàng kéemaan la parce que géwél xel lay demee te xel xam-xama koy gunge soko boli yimi yéemi bépp xalaat kët bu amul xam-xam su waxe xelam du dal bépp borom xam-xam bu amul xel su atté daano parce que yuninti bi boowu ko fi te al ulamaa warasatul anbiya seetal lolu ki wutu sañu la yok sañu la yakali jigéen ñi yéen a ngi nii toog ma laaj leen ndax kuñ ci jox dépense li la sa jëkkër jox ci nga yëm wala danga yokk ah da ngeen di yokk waaw góoru meew Gloria yokk rek kaay leen ñëw leen fii rek dañ koy saraxe nag dem noppalu ji kon ñaata la benn pot dama pot ñaata ñetti pot ku ci jënd yàlla nga demal jana ñetti pot mille francs moo gën saraxe foofu ay jigéen lañ ñu bàyyi naaju dem leen fii nit ñi jënd ci ma doog a continuer bu kenn way nag waykat yi jënd leen ndax sarax nañ leen bu dee tablette bi nag huit mille ku ko mën a jënd it baax na jox jox ma benn tableen man dem leen ci biir fële soxna yi jënd si aajo dana faju de ma pare danaa ko laayi nag su nit ñiy dekki ëllëg yaa ngi dekkee fa ñuy feyee waa Badar ak waa Hunayn mu ngi ci gis bul xullu yemal yër ko xaadimu rasoolu ko wax dërëm la wax benn dërëm bindal nañ la yiw ku mel ni ku teewoon xare badar te gis nga woykat bi junju ko ci koor bi am nga yiw wu mel ni ku demoon xare Xunayn jullit day am yëg-yëg mooy tax yàlla yërëm la ñu wax ko Cheikh Al Hadj Malick bëgguma nag kenn jógee fi te yóbbuwoo loo amoo loo yóbbu da ngeen di déglu ndax ngeen yóbbu man duma conférencier duma gàmmukat jàngalekat la jàngalekat la cours bi nag boo ci nekkee ku wax yàq sa dégg ku foto yàq ku jaabante yàq waaye ku dal defer élève bu tardé day yoot toog ku jàng école xam nga li may wax élève bu tardé yoot rek toog ñu wax ko Cheikh Al Hadj Abdul Hadj Malick ñëw ni ko Abdul Aziz dafa doon lekk gan ñi Amadou toroxal ko déglul waxin bi parce que ki bëgg yàq waxam du rafet Cheikh Al Hadji Malick jëfandikoo in jaakum faasixun bi naba'in fa tabayyanu luñ la wax ni nit a ko wax te rafetul teyal bul mer mën naa bañ a amee noonu ñii dama leen koy tere dama naan leen ku dégg safaan boo ma ko nettalee baalu ma la moo xam fu wax ji jëm bu ma ko nettali lu baax loo dégg yónne ma sama warsam ma déglu waaye xasanti duma ko déglu wax ju ñaaw duma ko déglu kuy ŋàññi gor duma la déglu ak koo mën a doon xuuloo li naasi xusnaa yàlla ne buy wax ak nit ñi sóoraale ma ci samay jaam lañu sama jaam rafetal ko bul mel ni say jaam nga yor même bu doon say jaam sax waxeel waxinu nit waxuma laa jaamu jàmbur yow sa doom bu ma daloon ci kaw waxin wa ñaaw boo génn da nga naan ay eh, Iran kii sama njaboot la xoolal nooy waxee ak moom kon njabootu yàlla nag nettali lu bon baaxul Cheikh Al Hadj Malick ne teg ne nañ ma wool Amadou Amadou la ko daan wax ni yone ana foto photo mam mawdo bu mawdo waré mbam mam amadou té ngalabki gi mo mawdo war mbam mam amad lo té ngalab mbam mi ñu la yeen mawdo ne ko lutax mu ne waraki banal himat yenent bi da waron mbam il faut ma war ko وراكبا الحمار ممكن تصير قلاس بي عائد ذي الأوجاع والسخم yenint bi boo feebaree mu seet la soo amee tawat mu seet la léegi da ngay ànd ak nit am alal mu fréquenté la di la tuddal doom sa sëriñ soo amatul dara daanu dootu la tuddal doomam du ñëw kenn dootu ñëw kon yow taxoo koo na ñëw sa poos a taxoon sakkanal leen seen poos yi ti dugal ko fa mu war a dugg bu ëllëgee du ngeen ko rëccu saa waaye garab ji nga baana baana jàngukaay la demal ci àll bi nit ñaa ngi commencé dem ci tooli mango yi gaare pojo yi maire yi fa la ñuy yendoog paa yi boo ragee fa lañ fay géej ba déwénati mu meññaat loolu mën nga ci jàng Cheikh kuy wor mango nekk fa di fay yendu añ di fa fekk mango defe na yaa ko tax garab gi nekk yii doom yi ci kaw wala tax a jóg buy rag rek nga yooru doomu aadama lu mu la mën a wax ci àdduna boppam a ko gënal ku mën a daje yeewul rekk ti ku bëgg dara mbaal ga la koy xëccal foo ko mën a jële wuti Cheikh Tidiane mbay de bëgg na takk Cheikh Mbaye bëgg na takk ngeen naa ko jaaree ci takk ci xewam ay doomu jaal Mbaye sa yaay nangam Moussa Allé Mbaye daa góor rek mu xalaw may la lam yoronti daal leb bor ci bitig bi pour bu ngénte li paase mu fay mu jël ndawtal ga may ngénte la wees mu daw dem tool nit ñi kenn du leen topp toppal suñu borom ñi woo góor gi Amadou ñépp sawar ci woo ko mu yegg si Cheikh Al Hadj Malick ne ko Amadou lu xew sa lu xew sa digganteeg Abdoul Aziz xam nga ni nit bañ na nit ci dég-dég nit bëgg na nit ci dég-dég yépp erreur la bëgg sax ci dég-dég a tane ñu nettali la ci nit dara rekk nga dëgg ca nettali ba bañ ca kooka yàlla ne ànduma ci toppatoo ko ba xam ñëwoo maam Amadou mu ne ko waaw lu xew sa diggante ak Aziz mu ne ko dama koo fekk ca gan ña mu sukk ca ñoom ma yëlëb loxoom ne ko na dem ci ay moromam mu ne ko waaw wóoree loo teeluma njaboot gi ndax njàngale mi ndax daara ji ndax gan ñi il faut am ku mu ci uutu yaral ma leen waaw góoreloo lii la wax ris euh, am na benn télé yooyu ñuy def ci dëkk yi seen chaîne bu ne Tivaouane li may xit maa ko dégg bi ma la jabtu nee na Serigne kër si dafa ñëw di seet Serigne kër dugg nee na génn góor tëgg ko mbéj ne ko acca caranga talaatal mu nee na mu talaatama ne ma caranga demal coon nga laajte ko neena ma dem caranga nee na ki ma talaata xamuma ñu ni ko kii rakku sëriñ Babacar Si la rek mu tiit daw ñëma baal ma baal ma ñëwal nee ma ni ko billaahi dara du la ci fekk kii ci biir ku ko rangul doo ko jëriñoo danga ma dimbale bàyyil ma rang ni ñépp ndax ma séddu ni ñépp baax na baax na baax na baax na mat sëriñ ngeetaa ma wax ko mais seetal loolu léegi nag Cheikh Omar nattal ñetti jikko yii ku ñu ko def ci yow baa nga def ko foo jaar nit ñi bëgg la bàyyam seetaanu ko nangu nañu jubbanti Haadi Touré tibb dugub mu yii naan kubéeru satala demal ba ëllëgati Cheikh Al Hadj Abdoulaye nga sukk ci sa dépense su papa di lekk sa taalibe baay yëkkati sa loxo yëlëb ne la acca sa baay accepté kon bëgg na nga doon dara ëllëg moo tax jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla aljana waaye nag munu ko jegeloo yàlla sëriñ bàmba nee na bi kasratil aadaabi fa innaha jaalibatu sawaabi sëriñ bàmba nee looy dajale sa compte bancaire dafa def ay milliards yow Cheikh Omar nga jël sa compte jikko def fa ay yiw ak yaru nee na loo yaru xeebal ndax li nga bëgg yépp yara la ko mën a may jege yàlla yar jege mag ñi yar lu xew ñu boole la ca yar kuy yare di ko du bokk ci dara cheikhul xadim nee na fa innaha jaalibatu sawaab man léeg-léeg ma gis ko bokk ci këru mag ñi ne mooy seen sëriñ nga jëfandiku rek ma xeeb la sëriñ bàmbay sama sëriñ war nga boo jëfee ñu ni ëskay ndax nga sagal ko ci sa jëf ndax yaa askanu ci moom waaye léeg-léeg nga askanu ci sëriñ bàmba jëf ñu ne la lay sa min ahlika ndax innahu amalun xeyru saalih yàlla nee na ku yiw boo askanoo ci moom te yiwoo bokkoo ci moom bokkoo ci moom ku yiw ku yiw rek yonent yàlla Muusaa nag dafa soj dem seeti genn góor ci Cheikh Omar Cheikh ko euh, dangay ngay wut ngeer ak rat nga baxal ko naan dina wér Moussa ut ngeer ak rat baxal naan soj ma yokk mu jaaxle ñu yebal ko ci benn kilinik ne ko demal ci médecin bi mu dem médecin bi jox ko sasi boo xam ne ratatene ak ngeer mu baxal ko wér bee ko kee joxoon mooy bii ko médecin bi jox ñoo tolloo dosage ak yépp bi yokk soj bi faj soj yonent yàlla Moussa laaj suñu borom lu tax mu ne ko médecin bi dafa jàng métier sonn ci xam ko su dee ku jóg faj kon nu muy jëriñoo métier moom kay soxna si taxawal eh soxna si da ngeen di ànd dem ne baa nga ñëw ngeen toog nii baa nga bàyyi jaabante yow da nga koy fekk ba mu fekk si nga bàyyi fi dagg seetal loolu de ci clinique bi pour wax la ne garabu mbedd yi c'est grave ki jàngi médecine dem ba tugal walla moo xam ci réew mi la ko jàngee wëlbatiku dem di faj Iran yor ay reenam ak sungufam fële te ku mu jox nga naan nga wér kon hôpital bi lu muy jëriñ mais dootul am njëriñ bala ngaa saña dem feneen demal ba médecin yi ne la yow sa fee gisuñu ci yow feebar lii mënuñu koo faj nga seeti keneen Seydi Hadji Malick nee na su ma nekkaatoon xale danaa jàng médecine xam nga xam-xam ñaata la Cheikh Omar xam-xam ñaar rek la ilmu tibbi lil abdani wa ilmu al fiqhi lil adyani jeexna na xam-xamu médecine ak xam-xamu diine xam-xam bi lay jàngal julli or aj asaka dekkando noy defere yi ba mu baax boobu mooy benn bi bi ci des mooy buy faj nit Maodo jàng na fiq waaye mu des médecine te maa ngi téere boo xam ne Maodo ko taalif ci médecine ba pare ne bu nekkoon xale jàng ko xam nga lum ci bind dafa laaj dafa laaj jigéen waa hôpital bi ne leen malade buñ leen ko indilee malade buñ leen ko indi lii ban garab comprimé ngeen di njëkk a jox malade bi lii la Maodo laaj bu dee yéen fajkat di am nañu fi ne ñu wax hmm? malade buñ leen ko indi lii fi ci hôpital lan ngay njëkk defal malaat bi lan mooy jiitu xanaa hôpital bi ne mu ah ah lan consul Maodo ne ànduma ci ñi ni Maodo ban baat ngay njëkk a wax mooy garaawul boo ko tegee sa loxo ne eh, pourtant garaawul dafa tàng rek nee na booba la mën a wàññi ab doom mënu ko wàññi waaye dof ñëw na ah mi yéen fu ngeen ne mais kii day dee ah nee na jarul toxal il faut day faatu tey mu ni bu nekkoon ndaw day jàng médecine ci defar ci téere dalal xel soo demee Thiès am na fa hôpital dalal xel Cheikh nit bu amee problème ba ñëw ci yow na la wóor ne Iran lim am problème sérieux la mais bu ko sérieux ci man danga may gën a gaañu oyofal ko ne Iran lii garaawul xanaa gisoo sëñ Tuubaa niñ ko def ba xeex ko génne ko réew mi gis nga ndam lim am Seydi Hadji Malick ga dëkk gaaya di waalo waalo di jolof jolof gis nga fi tëdd ci Kajoor Seydina Limaamu Laay maam Abdoulaye Niass maam Amari Ndaak se kenn dëkkul fa mu ne ak yi ñu dégg Iran lii du dara te ku leen roy nag war a dégg dara mu wàññeeku waaye nag ah Iran lii garaaw na de rey nga ma Serigne Abdou nee na li ma yéem ci Serigne Cheikh dama daan am problème bu rëy ñëw ñaan ko rendez-vous mu recevoir ma ñu toog mu di ma déglu ma wax ba yëgal mu ne ma asi lii rek asi yow ëpp nga lii lii du problème bi yow ni nga toll lii di la jaaxal ah nañ ñaan nee bu may dem damay oyof tay médecine xam-xam bi baax na waaye médecin it nite farata la nite nit dana am xam-xam ti du nite nit dana yaru ti du nite nite dafa am solo soo ñëwee tiim malade donte donte garaaw la boo tegee loxo ci bopp bi teg fii danga naan tàngoor wi la rek mais garaawul xaaral ma ñëw su duggee ci noppam dugg ci noppi bokk yi xam nga bu dee meer la alam laay rabbil alamin ñoom boobu la ñuy dóor parce que tiitoon nañu baatu garaawul mën na ko wéral dama koy nettali mbay caam médecin la bu nekk armée bi ma koy jàngal ci daara ji asma yi ma di ko nettali lii ni ko même bu fekkee malaat ñëw na amul garab amul jëlal dara rek xóoyal na ko rek wala jël ndox rek ci benn bi noo ñëw ne ko naanal léegi mu dal ba naanal léegi mu dal day jàpp ne day dal te bu ko jàppee day dal mu ni ma dal na ma booba maa ngi Saint-Louis bàngu ñu indil ma malaat nee na garab amul ma jël ci dóom bi def ko ci kaas bi pour bu ko gisee gis mu weex ma jël kudd di yëngal di ñëw ne ko boo ko naanee rek tàngoor wàññi ko léegi nga nelaw nee da ko naan rek commencé xaram parce que nit loolu def ci xelam rek loola lay demee waaye fu ngeen nekkoon day dee ahum non yéen da ngeen a sàggana ah. daldi waaxu jàng di way nitewoo de Cheikhil Khadim daa wax ñetti affaire nee na nit koo ko def ci moom mu jéggi jamono jàll ba mu koy wax ci àkki sëriñ fàllu mbàkke la ko waxe woon daf ne sëriñ lu mii ñetti baat la wax nër ar jar yar naa ko ba mu ne nër ma jàngal fàllu ba mu ne ar ma yee ko ba mu ne jar jar ak nër na xale yi xamuñu ko mooy jàngal naa ko ba mu xam li mu war a xam yépp yar naa ko ba mu yaru lool ma jàngal ko ba mu xam lool may yee ko ba mu yeewu lool mu ne xawma kan mais fàllu mii de kenn mënu koo teree fël ñetti ngànnaay la yaru xam-xam nite foo dem am place ñàkk yar ñàkk jàng ñàkk nite mbaamum baadoo la nga yaru dafa baax moo tax ci faj yow mi ak accueillir sax war nga koo bàyyi xel na ngeen def lu ko dal yaay lu xew moom kat day crise rek mu ne ah bon xaaral ma ñëw làmb kaa indi ko garaawul dafa tàng nag yaay tàyyi xelam dal nga jël loo ko jox wax ju neex rek doo ko def nag sa consultation nga consulter nag alaaji Maseen Mbay ku ko xam ci yéen xam nga ko xam nga ko boo fi jógee laaj ko ko da daan def ku muy ñaanal ñaan kër la bu la seetee te mënulaa faj danaan la dangay dee effectivement benn bis sëriñ Mansour ne ko dangay dee kenn du ko wax nit bu ko waxati koo mënul faj rek jox ko garabu dalal xel bàyyi ko waaye bu ko waxati day dee bés sëriñ Mansour wax ko loolu mu jeex pam ma am ko mu seet def istixaara ak yépp ñu wan ko new beeg jullee géeg yépp mu ne waa ji day dee waaye nanguwu ko wax malaat bi nag mu jox ko garab dalal ko ni ko naan ko bu subaa nga diis ti pam masee nee na yàlla xamal na ma ne du wér balaa suba dana dee bàyyi mba seen nee na ma julli suba génn di doxantu seen waaja di doxantu te waroon a dee biig neena may doxantu waa ji di doxantu nee ma bàyyi ma bàyyi ba ëllëg sa mu ñëw seet si ma pam ma seen nee ma jaaxle nag di ko xool bëtu lu xew nee na mu di ma xool rek ba mu yàgg mu ni mu waa lu xew pam ma seen ni ko jaaxle rek joxaat ko garab ni ko baax na nee ma duggaat xëluwa seet nekk jinne yee ma trahir beneen néew lañ ma wan du waa ji mag ñi garaaw nañ de si te mu duggaat ñu ne ko danga gaaw du néewam nee na ma continuer faj ko boo mu wér faj gis nga boo amee xol bu rafet faj yomb la xol mooy faj da nga gis ku jàng yaasin li maa xuri a yenentu bi ne soxla boo ko jàng rek mu fayu nga gis ko man benn waaye nee na ma jàng naa trois cent treize yaasin sama soxla gën a dëgër ma ne ko du ci yaasin ci sa xol bi la gis nga nit dina laa biir ba ku mu tiim faj la yàlla suturaal ko mu wér am na ñoo xam ne lu ñu ñaan mu nangu ndax xol bu rafet Sénégal jàng jànguñ fi woon ay kaamil ci jamono Océy bi ay million kaamil ay million ñu jàngal ko Karim Karim Wade ci Océy bi waaye fi la leen fekk yi nitam ah kaamil yu kenn xamul nu mu toll kaamil yi fu mu jël Karim rëbës ba mu fa jógee Qatar nga xam ne du kaamilu yàlla kaamil bi yàlla wax kenn du ko jàngal nit muy am problème jànguñu kaamilu yàlla yéene nag laay wax man suñu jàngoon kaamilu yàlla xajul ci àdduna bi ay million kaamil parce que dangaa dégg millions yi ñuy séddale nga ñëw jël wàcc kooku du kaamilu yàlla kaamilu intérêt la yàlla du intervenir ci intérêt maa ngi koy wax rekk ci football bi mës nga gis match si xaritoo amical ñu ne la bul woor xaritoo doo xaritoo yàlla match si xaritoo boo ndogoo demal football ko stade baa ngi projecteur yi woor leen ba jant bi so ngeen ndogu bu minuit ngeen def seen match si xaritoo fo rek la foo du tax a dog koor nga ca kaafaara nga ca daganul suñ demoon coupe du monde sax duñ leen ko may FIFA la ñuy wax ne leen ñiy jullit nañ leen may ñu football guddi ndax weeru koor la mat yi daje yow lii mag mondial ñëwagul mat match xarito ñooy leen bu leen woor